couvre-feu bi ba pare jéggi ma ndawul buur lu nekkoon ci liggéeyam moom tim démb daan nañu koy bàyyi mu ñibbiloo yéen yéenekaay gi di Rewmi Quotidien Aminata Lo Dieng moom daan nay wax ne vingt et une la ko gendarmerie bu Wakaam daal di teg loxo nee na couvre-feu bi boobee fukki simili ak juróom rek moo si topp bi ñu ko jàppee nee na dafa baalu waa gendarmerie bu Wakaam ngir ñu baal ko mu ñibbi waaye nag dañoo lànk a ba xolam moom koy enregistré moom ndaw si nee na sax sàkku na ci ministère de l'intérieur ngir ñu may ko ab laissez ndax dafa am ab doomam boo xam ne asma la te saa asma bi mën na koo daaneel te musiba mën na cee am nee na loolee moo taxoon mu sàkku woon ci ministère de l'intérieur ngir ñu may ko ab laissez waaye dañu ko koo lànkaloon moom ndaw si nee ba ñu ko téyee ci gendarmerie bu Ouakam dafa jël téléphone am di woo ab avocat waaye benn gendarme moo ñëw jël téléphone bi ba nar a damm loxoom di enregistré kooke nag dafa violé li nga xam ne mooy àqam ak yelleefam yéen a kaay gi de la na ñu xëy fekk fa maître Moussa Diop mi nga xam ne moo jiite woon Dakar dem dikk mu fay ñaxtu nee na Macky Sall moo nekk ci ginnaaw dossier bu Dakar dem dikk waaye dina xam ne ba si góor a koy bay moom maître Moussa Diop nee na Macky Sall dina ko fekk ci aw yoonam li mu wax ci ñetteelu mandat bi loolee moo tax ñu koy andil ay ñol-ñol waaye nag lépp dina ko dékku dina ko sabañante ak ñoom ndax moom lépp lu mu def leer nañ la yéen a kaay gi di Walf nee na en tout cas li am ba des na ay direction yoo xam ne bëri na ay jafeñ-jafeñ moo xam Dakar dem dikk la moo xam poste la moo xam kuddu la yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na jàppante yu métte métti démb am na ci université Gaston Berger ñi nga xam ne ñoo étudiants yi ñoo doon jàppante ak takk der yi la ko waral waa université Gaston Berger ñoom dañoo tëj restaurant yi loolee nag moo piita gaz xoolee étudiants yi ba am na ay étudiants yu baree bari yoo xam ne démb am nañu si ay gaañu gaañu cas grave sax am na ndax am na chef étudiant boo xam ne ab grenade lacrymogène la ñu ko dóor ci bopp bi yéenekaay gi di Dakar Times xëy ci nga xam ne ne andi na ko ci àdduna bi ndax organisation internationale du travail di OIT rapport bi nga xamante ni génn nañ ko nee nañu salaire yu baree bari dafa daal wàcc la ko waral mooy coronavirus bi yéen kaay gi du l'observateur nee na coronavirus bi ci Sénégal bi muy doog di commencé gisoon nañ Abdoulaye Diouf Sarr di wax ak a bàyyi docteur Bousso di wax ak a bàyyi docteur Khemes Ngom Ndiaye di wax ak a bàyyi docteur Moussa Seydi di wax ak a bàyyi waaye jamono ji ñi ñëpp dañoo réer mër ne mes ne mentañ loole bu baax ci ñi nga xam ne ñooy askan wi waroon nañu leen dégg bu baax a baax ñuy wax ci woppi coronavirus waaye ñoom docteur Abdoulaye Boussouka ñoom docteur Xemes Ngom Ndiaye ak ñoom docteur Moussa Seydi jamono ji wàññi nañu bu baax a baax seeni wax ak seeni jëfin lan moo ko waral journal bi du l'Observateur moo xëy di ko càmbar ma càmbar li nekk ci yéen a kaay gi di réew mi quotidien docteur Souleymane Kayta di ab économiste di ab jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee na ñaareelu wàgg bi ak mesure yi nga xam ne état bu Sénégal jël na ko dimbalewul lu jëm ci wàllum relance économique bi maanaam yëkkatiwaat suñu économie bi dina jafe lool ak mesure yi nga xam ne état bu Sénégal daan na koy jël Sénégal jamono ji li ñu war a def mooy libérer économie bi économie bi na ñu ko war a libérer ni ñu koy libérer nag mooy bàyyi askan wi ñuy dox seen yitte waaye nag na ñëpp jël mesure barrières yi moom docteur Souleymane Keita ci les jeudis de l'économie nee na agriculture bu Sénégal buñ si jafandikoo ba pare nag dooleel li nga xamante ni mooy entreprise yi amaat beneen taxawaay ci économie industrielle bu boobaa Sénégal mën na cee génn yéen a kaay gii de las xëy ci njiit réew mi di président Macky Sall mi nga xamante ni ñiy saaga ak i def ay giraawali ci internet bi naqari na lool lool lool ki nga xam ne mooy Macky Sall Macky Sall mereti na démb ci conseil des ministres bi nee na il faut ñu jël ay matukaay ci ñi nga xam ne ñooy def ay njombe ak di saaga nekk ci internet bi loolee mënuñu ko bàyyi mu moo moom yi ba mu daanelee ca loolee wax na ci programme yi nga xam ne moo am ci rajo yi ak programme yi am ci télévision yi nee na il faut ñu xoolaat ko yéen a kaay gi de la témoigner nee na dañuy wax ne policier du bàyyi dóor waaye nag am na jigéen ñoo xam ne saa su nekk ñoo ngi jël seeni matukaay ci seen biir néegu sëye am na ay salañ yoo xamante ni ñenn ci jigéen ñi duñu ko mos a bàyyi ginnaaw journal bi nee na cuuraayu jigéen ñu duñu tàqalikoo benn yoon ak moom te cuuraay yu baree bari nag maanaam moo am yéenekaay gi tamit wax na ci bin bin yi nga xam ne am na jigéen ñu bare ñoo xam ne dañu koy wéttalikoo ci seen biir négocier yéenekaay gi nee na li ñuy wax petit pagne maanaam séer yu ndaw yi am na ay ñu bari ñoo xam ne dañu ko fonk lii lépp nag ay arme fatale la maanaam ay ngànnaay yu garaaw a garaaw a yoo xam ne bëri na ay jigéen ñoo xam ne duñu ko bàyyi ginnaaw mukk yéenekaay gi da la témoin nee na masata moom bi ñu ko laajee nee na ñetti soxna la am waaye nag fu mu ay rek day wàcc ba